kii rek maa ngi leen di nuyooti di leen ziar ak Babacar xam ngeen ko rek du mën a ñàkk rek ci ngeen di dox fii ma dugg nag ab àll la dama seen ay nit yu taxaw na le ma bëgg a xooli ñan la parce que xam nga man su ma séenee nit maar mu may xaw a niroog mbër faw ma jéem xam kooku kan la moo tax nii may dox nii dugg ci biir àll bi maar maar gi tax a ngi nii lii moom defe naa garabu daar kase la lii ah way maar daar kase ngi nii laa yi lay la margis nga dar ka <laughs> si ndax maraas lu seer ngi nii est-ce ne Sénégal lenn am na fi maar mm-hmm. li ñu am ci ay ressources est ñu ko exploité ni ñu ko war a exploité ni mu seere ci dëkk bi te gars yi duñ ko exploité xool fii dafa meññ waaye lii nag ma li leen newut sunum réew de génn sunu territoire ndax newuñu sunum réew nii actuellement <laughs> waaw te sunu réew am na daar kase waaw mais xoolal daar kase yi macha allah meññ waaye lii yàlla na ñor ak jàmm waay nañ dox rek dem. maar nañ dox dem garabu daar kase ngi nii garab gii tamit xam naa ko de tur wala fàtte waaye xam naa ko xaw ma gang la xaw ma xël xaw ma daal noo du xël ah? Ah? soto waaw soto ngi nii maar kii mooy garabu soto soto ngi nii sa yow wuy nga téede wuy wuy a ngi nii kii mooy buy antibiotique lu baax a ngi nii ci wér gu yaram xam nga Sénégal li ñu sonal léegi mooy lekkatuñu sunu ay ressources naturelles maanaam ay buy ay daqaar ay bisaab yooyu dañ ko war di utiliser dugub maa ngi lay bëggee. ma ne dama leen seen ngeen taxaw ma ne xaaral ma doxantu xool ñii ñan la parce que dañ ma niru ay mbër. waaw mbër nga. waaw foo nekk ba nekk man maa Gàmbi fii laa dëkk. ah Gàmbi nga dëkk. waaw bu Faas. yow yaay Rambo bu Faas. waaw ci àllu Gàmbi bi nii rek di doxantu. waaw noonu la. Ah. dëkk bi moom mooy loolu dalal nañ leen bu baax a baax. ma continuer ba tey rek kon ñii moom ba tey mën nañoo nekk mbër góor maa ngi lay bëgg. waaye de loo bëggee du. yaa ngi gàddu de. la. da nga ah, ah, doon bëree fii démb. siyaar ah. <laughs> bu wér a wér a sant bu wér. tur Cheikh Ibra ñu naan ko Pakala. yow sa tur nga rëy na de maam Cheikh. waaw yab sa xaanji. yab sa xaanji. barke yonent bi. maami sëñ Cheikh maami maami Cheikh Ndigal Fall. maami Serigne Modou Aminta Fall Lamp. Balla ak Maram Aysa ak Sadio. maam jaare bu sa masa paraxaan. bilaay walaay. kenn du seex Ibra. kenn du moom. moo feeñal Bamba. barke yàlla lamp bi Bamba taal. noonu la demee. taxaw. waaw ñu ci àll bi. ñu ngi ci àll bi nii patiente nii. yaa ma gën a ku ma gis ci seen biir moom laa xaw a xel ma te man a xaaral ma dem xooli. waaw sama benn booy boo xam ne ma ko fekkoon daaw ci benn dëkk. mu def lu day waar affaire Ronaldinho di Messi. sama logo la ah, daa yéeme de daa yéeme de ci kanam nga koy xam sax ah. dañu soog a door nii rek ci kanam tuuti nii buy lëndëm nii ci lay gën a doon danser instant bi mooy loolu. <laughs> moo tax foo ma wax ak moom booy bii la maar yàgg xame nga kii xame nga booy bii. waaw xame naa ko. foo ko fekkoon daaw. daaw euh, làmbu Yékini bi. mbuur mbuur mbuur. wax nga dëgg mu ngi nii booy baa ngi nii tooni kii moo bëri woon ak booy bool demi final ba ba saaraan daaw mbuur. ah comme boobu la may laaj ba pare parce que booy bool bi ama maa dal. est-ce que nag it booy bool booy bool a bëri de champion la boo gisee manipulé booy bool deful ak dama ni booy bool boo si a baax damaa dem ba àgg dugg YouTube. ma xool mais booy bawal bu ma xoolee moom moom ma jëkk dafa tëdd quoi dafa am màndal parce que damaa yor quoi. Ah, damaa yor waaw. mais man mais man da ginnaaw bu da nuyu naa la. waaw ginnaaw bi ñu sant yàlla julli si yàlla salaam di sant suñu ñaari waajur waaw di leen nuyu bu baax a di sant waa sit bi. Euh, Equivox. Equivox waaw di leen siyaar di leen ñaanal jàmm tamit xam nga hmm. di leen nuyu bu baax a baax fii ngeen ñu fekk ci Gambia. mën nañoo hmm. wàcc nii mbër nañ toog nii fii àll a ah, garaaw li am ñax la nañ toog nii. man de damay toog ba ci suuf garaawul ah lii dara maar man yàgg naa gub am ñax ak di ko ratu ah. dara nañ toog nii waxtaan mbër mhm. ci loo ne nga ne. waaw ñu ngi sant yàlla bu baax a baax a baax sant yàlla bu baax waaye ñu ngi am jàmm bu baax a baax ah. ñu am jàmm bu baax. Oh, mhm. <laughs> alam lébu. waaw waaw lébu pire kay. Uh-huh. pire ñoom ñun ñuy dëkk Jandeer dëkk bu naa Kër Mbir Ndaw waaw Kër Ndaw mooy dëkk teraanga yi wala dëkk lujum yeeg mangi jeeg sujeeg tey jii basante bi nga añee tey jii sax sujeeg yëpp Kër Mbir la jóge Kër Mbir àll boobu nootoo yëpp ci ndugg mi de tool yi dina ñëw dina ñëw yow moom damaa bëgg nga ñëw seet si waa Kër Mbir dalal la ah. parce que tamit boo demee daanaka ay tey waa saalum bi ñëpp ñi Gàmbi bi ñëpp ñu nga dëkk boobu noonu tey kër goo dem daanaka ñu ngi yor ay ñeenti étranger wala juróom di leen fay weer wu dee salaire bu seet parfois tamit ñu dajeeg njarte boo xam ni mooy loolu day doy waar lool te ku si ne tamit dan lay fay sa weer mu nekk loo xam te ni lu metti la surtout jamono yi ñii nii dañuy dund lool noonu jamonoy corona bi dañuy bay ba pare ku si yor ay surga war leen a fay trois mois wala quatre mois te li ngay jaay ay kilo fukki dërëm ak yooyu noonu woo état tamit mu gën leen a si côté boobu parce tamit ndawi Sénégal ñoo fay ñëw di fa liggéey waa Saloum bi yëpp fa tey ji boo demee étranger ñoo ëpp ñoo ëpp gaay ñoo ëpp jeunes yi yàlla xam di daan seen doole di ñëw mu mel ni kon Mara wax na lu am am solo loolu état na ci bàyyi xel maanaam dooleel ñi nga xam ne ñu ngi Sénégal di jéem a def ñoom le tout pour di liggéey rawatina nag baykat yi nga xam ne dañu ne si sonde ñaay di bay ay lujum waaye dooleel képp koo xam ne yaa ngi yëngutu état du Sénégal loolu ki leen ko wax xale la boo xam ne mu ngi dëkk foofu ñu naan kër mbir ndaw xam la fa nekk mais man mais mais mais man fi may ñëw ak yow léegi ci làmb ji lan moo la indi Gambie. waaw Gambie moom li ma fa indi mooy euh, nekk affaire bi muy suñu liggéey tamit. ñu gëm ni xool Sénégal amul làmba xam ni entraîné naan ba am doole tey waruñoo taxaw muy muy ñeer si noon noonu ñu ni nañ dem gàmbi wane ko fa incha allah. loolu moo tax ma ñëw gàmbi Tony kañ la dugg ci làmb. Tony mu ngi dugg si làmb 2017. 2017 2017 waaw. bëri nga ren. bëri naa 6 combats 6 victoires. 6 combats 6 victoires. Tony yow kon da yaa ngi def affaire bi macha allah. waa gis nga de ñun moom mooy loolu moom tarkaala te bi tamit di sant tamit suñu fanse yi tey bu yow Babacar wala waxee dëgg yàlla seere nañ suñ combat bi jàll kii mën na kaa seere dañoo dem ba stade booy di ñu oo ni pour ay car yónniwaat ay car amuñu sax moyen bu jëlaat ay car bari na booy yoo xam ne dañoo jënd bee mënuñoo ñëwaat si stade ñëw stade ndax car yi fees fees del te ñun amatuñ moyen bu jël ay car quoi di woo yi ñëw foofu yëpp ku si mel ni ñu jàpp si parce que tamit dañu xaw a doole côté boobu noonu parce que booy boo jógee tuuni jandeer gépp ñoo jóg bayax route de Thiès bi fépp daal Tuwaawan Morola ñëpp a jóg waa Kimaay Kër la Diop Tula ñëpp ñoo jóg ba si Saalum bi Saalum dama fay bëri fans war jaxal mais mais man li ma lay laaj li ngay bëri Tony boobu ba tey nit ñaa ngi koy wax macha allah Tony li ngay bëri lan la foo jàngee bëri boobu. waaw lii moom dama ko judduwaale man moom nii laa mel mosuma taxawoo ak nit mu mën a kaay ma jàngale bëre wala déedéet non musuma nii moom lii la ma yàlla bindee quoi lii la ma yàlla bindee mais nag dama doon bëri ci sama maam bi jur sama yaay. doon ci sa. bëri bi dama ko doon sama maam sama maam bi jur sama yaay. local ngi tudd André. André lañ ko doon wax waaw mais champion la moom daan na maam góor gi yaay la amee damay toog parfois di déglu son yi maam góor gi. mooy hmm. déglu son bi di déglu lim ñi mu daan mu ni doo ci dégg sama tur mukk. ah sa maam waaw sama maam moom la nii ñi ma maa daan sa lambi pour. ndeysaan wallaay la si xam nga mu ma ne woon maam góor gi ku soxor la woon hmm. bi may bëre ak moom ñëpp dañu woon maam góor gi dina ko rey hmm. mais nag gauche droite laa ko dóor muy fay yu ma ramas ko jiw moom teg maam góor gi du ko boole ci ñim daan mukk te doo ko hmm. lim quoi kon tamit ñun dama naa dañoo dañoo doon na làmbo parce que tamit ñëwati suñu maam falang xam mu nekk loo xam ne na si làmb Sénégal lu ne mhm. maam sama papa Mbaye Diop tamit gis nga def na si làmb Sénégal lu ne mhm. maam xàqal la ñoom ñooñu ñëpp ay mbokk mhm. lan deret xam nga kon tamit Tony moom li may wax rek ku dëkk jandeer dama la naa ku dëkk jandeer boo ko naa demal bëre ami wax la rek waaw gune ba la si gën a ko laal bu ko laal bu laal waaw man ni nga toll nii moom a jaaxal yow Tony ma maanaam doo nekk kooku naan ponkal nga te wax boo duggee ci géew daal xaw a indi ponkali problème non li problème bi ñun dañoo fonk entraînement. Hmm. dañoo gëm entraînement. ok liggéey lu ñu mën a am ci àdduna liggéey moo ko am. Hmm. moo ñu ko may avant moo dugg ci làmb 2017 parce que li ma roñee est ce que amul ay 28 drapeaux 30 drapeaux. Hmm. te mosuma bëreeg sama morom. mosuma bëreeg sama morom. dama indi drapeau indi drapeau ba mujj gi. Mhm. bu ma indi dama naa bu dugg si kër gi nag génn. nañ ko teggee ne boo boo yeggee yóbbu yàlla seere na lool billaahi wallaahi wala. sama premier combat bi Sidi Diakhaté dëgg jëkk tëggal. Mhm. bi ma demee foofu fépp ay drapeau la. fépp presque lu xool ñu ay 48 drapeau. Mhm. te man mooy loolu mais nag du luñ bëggoon la lamboo dañ ko bëgg. dañ ko daa fooyee si mbedd yi xam nga yaay daañu tere. di ñuy daj lu ne. pour mu bàyyi ñu suñ papa xam nga tamit gis nga Tony sama champion sama grand bi gis nga gàllankoor yi nga dal mhm. suñu papa nag musul bëgg a bëre musul bëggaat ma bëre parce que tamit yaakaar na ni loolu noonu mhm. mooy li arrivé Tony man na ma arrivé quoi mhm. moom tey xam nga bi tamit da ko daa da kaa touché quoi da daa touché mais nag man ma yor sama bëgg-bëgg di dem si àll bi ay war jaxal waa war jaxal maa ngi leen sant bu baax a baax a baax waa war jaxal waa war jaxal ma leen war jaxal war jaxal mu ngi nekk si ka Kaolack laa xaw ma dara ma dem Mbappé suur bi ma jëkkee àgg nii ma ñëw booy bi jël si ma jagara paa bi ne ma ah yow est-ce que bëri si poids la bi nag bi kii ah, ceeb bi ma ne ah yooyu de xaw ma mooy loolu kii na maay booba xeeb na sama gabar yeeg yooyu noonu mais nag ñu ngi may jàppale si di ma dooleel si côté yëpp waa war jaxal waa war jaxal man mu leen a fay te dañ lay bëgg sa yow ah. dañ lay bëgg leen di bëgg waa war jaxal yëpp waa war jaxal di leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci bu baax a baax waa war jaxal mag ñi ak paa yi a ñoon ñoon asan sama seex mhm. Ousseynou mhm. xam nga ñoon Alaaji xam nga Papa Soulay Modou Daba Modou Daba moo la gën a bëgg ndeysaan Modou Daba barki Serigne Touba lay ziar non Modou Diouf bëgg kenn du Modou Diouf maa ngi lay bëggee bu baax a baax loo wax Baboucar Baboucar Baboucar jaara kenn du ndeysaan ah non maar ku la bëggati bëgg yàlla na seen jàmm yàgg yéen waawa jaa ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di nuyu waa kër gi Papa Soulay ñu ngi nuyu bu baax a baax di nuyu yaa say xam nga yaa Ami Gueye di nuyu jaara moom it jigéen ju man xam nga jigéen ju man booram quoi. am na solo ak ma da am na eh. jaara. Ah. barki Serigne Touba yow. booy da ngaa bëgg cere daa mel ni de. non Boubacar yow Babacar kooku bu defaloon cere nga bàyyi jaara. bul waxati lii. bu la defaloon cere sa dëkk dootoo fa laal cere. bul wax ni déet ak yaay nag ku leen dàq defar cere est am na tamit booy. yii jaara moom. sa waay loxo moo dàq defar sama soxna cere it nag dooni. loxo jaara loxo jaara waaw. je jaara bu musa waaw. man daal bi ma fa demee premier jour bi daal ma toog waaw après ñu indil ma cere man a ah ay cere yi xam nga boobu mbëru lébu yi la ñuy xam ak yooyu waaw waaw jaara tegal ma cere ji mais yàlla xam na bi ma koy lekk du ma toog taxaw déet waay damay moyet moyeti moyet bool bi ni pëng <laughs> barki Serigne Touba ba ba ma toog cere jaara laay laaj cere jaara ngay laaj maa ngi koy nuyu bu baax ay jaara toj nga dëkk bi yow mi xam nga <laughs> ñoon Awa Adama maa ngi nuyu ñëpp ñoon Ibu Kosa xam nga koso ñu ngi koy ziare bu baax a baax tamit mais waa war ñu baax la macha allah war ñu ngi leen di bëggee léegi fi may jeexale ak yow tey loolu nga wax ci sa ay maam yëpp doon bëre bi ci sa deret ak sa ay maam ba pare di ko pratiquer mais nag terewul làmb ji gis nga champion yi fi ne tey Modou Lo mooy roi des arènes ñoom hmm. Balla Gaye ngi fi ñoom Bombardier ñoom ñoom Eumeu Sène ñoom Gris ñoom Lac de ay hmm. Ama Boy Niang hmm. Tapha Tine mbër koo ciy xool def ko royukaay non man nag Ama Baldé mooy sama royukaay Ama Baldé moom mooy sama royukaay moom. loo fàccee Ama. non Ama dafa dañoo bokk gëm-gëm quoi mais ñi aussi dox sa kaw. dox sa kaw dox sa kaw war na ni maa la gën a nekk xale mhm. wala ni la tamit man li ma yor laa wóolu quoi ah. moom gëmul li mbër indi la wóolu moo tax bër bi mhm. moom day def li mu a def yëpp mhm. moo tax man daanaka dama ko roy ba dërëm laa yor nii dërëm ama ama balde doo daal non man doo maye jàmm jàmm hmm. nee naa leen ñoom waa Sénégal mbëri Sénégal yi ñëw fii Macky Sall laa leen li tax mu xañ leen jàmm mooy lan hmm. làmb ji mu tëj hmm. ñu ñëw Gambie kon bu ñëwee Gambie war nañu xam dinaa leen rey mbëri yëpp lay ñii laa leen di def foofu <laughs> yow bëri Sénégal yi. ah, ah baax na <laughs> suñu opte du woon ñëw bëre poids mais dañoo ñëw si làmba ji ñu dégg ñu ni Mbappé am na fi. après bi ñu ñëwee ñu dégg ñu ni nag poids léger mooy daw tey. Hmm. ma ne ah ñëw ba aussi bi bëre wu ma mooy loolu nag mais maanaam li ñu yor moom. amul mbër muy taxaw Sénégal ñu lay bàyyee xel. Ah. amul yaa wax lii. yaa ñu ëpp yaa ñu sut yaa ñu mais amul mbër muy taxaw Sénégal ñu lay bàyyee xel. c'est que nag xam nga du yoon ngay daan ay champion du leen tudde comme bi mais champion yi ngiy ràññee nii ci lu simple bi ñu bari daan naa la ci àll bi hmm. bari ci Seydina Mohamed ñu bëri champion yoo xamante ni ñu ah, am na ñoo ma ci mën a limbal non lu comme ñan bëri daan limbal ci kat Adama Goudia daan naa ko aada Adama Goudia euh, kii Léopold Léopold daan naa ko waaw Biram Bisin Biram Bisin daan naa ko assurance bu buur buuba waaw buuba assurance buuba daan naa ko assurance men lu war a bëri Gambien daan moo lay xamal ni mais ñun ñu raw ñun sa daan mais xale ba dëkk bitanti ñun maam kële euh, gànja gànja fa moom moom amuñ chance daje mais day bokk na trois mbappat yoo xamante ni yëpp hmm. maa koy gagné mais musuñ ñoo daje si lamb jour bi nga euh, Omar Dega di Mor Dega di génn hmm. maa daan maa daan Mor Dega jour bi nga akkan ñëwoon Iba Mar Iba Mar tamit da nga ko fi génne maa yi. ok waaw yooyu yëpp mais nag mosuñu daje si. mosu ngeen a daje. mais gis naa ni muy bëree nii mais ndaanaan la quoi. gànja waaw ndaanaan la ndaanaan la. soo ni kontaan naa ci yow. waaw Boubacar ñu ngi lay sant bu baax parce que yow tamit kenn yow. waa Kër Mbir faa nga ñëw ñu jox la si légumes yi. mango loolu kay dinaa ñëw. waaw Kër Mbir bari na mango. mango. man kay yaa ma fay teewal yaa may lu bari rek def ko maag sama caméraman bi waaw caméraman bi yàgg maar man li ma leen di wax mooy dama leen di invité kër mbir ngeen ñëw dinañ fa ñëw loolu parce que dëkku dëkku teraanga mooy foofu waaye dinaa ñëw kër mbir loolu nag mooy yoon waa kër mbir moom waaw ah lëjum baa nga fa lëjum ak mango laay wut si te bi bëgg nañ ñu ñaanaat bu baax a baax si côté ñu jàpp mbay mi ak dinañ ci jàpp président Macky lay dégg non dinañ ci jàpp dinañ jàpp Babacar sonn naan parce que xoolal tey imagine la yow lu tolloog waa Saloum ñëpp billaahi da nga gis booy boo xamante ni mhm. nii lay toll xoolal du am sax du am sept ans sept ans yu baax yu ferme yu normal. waaw ñëw foofu ñu koy fay weer barki Seydina Mohamed. maa ji dégg foofu liggéey nga fa foofu. liggéey nga fa état na leen jàppale. te ñoom bëgguñu demuñu si gaal yi. waaw bëgguñu gaal kalaan ñoom ñoom liggéey rek ñoom ñoom rek ñun. donc ñun amuñu sax courant bu mën a dem ci tool yi dëkk bi ak ah. tool yi matu sa deux kilomètres dëgg la courant waroon na fa mën a dem parce tamit ñu ngi jàppale Sénégal mbay mi mm-hmm. Mm-hmm. parce que marché noto bi fa la bagage bis bu ne mbay bi jour bi rek lëjum bi dafay mat ay 7 millions wala tamit da koy ëpp kon tamit état war naa sóoraale waa zone boobu yëpp am na solo kontaan ngi lay message bi jàll na mbër merci